jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax bu ñu gisee toogaay bi xam ne ndaanaan lañ seet si koo xamante ni nii duma ko présenté sax ndax su ma nee Père xel yi dem ci làmb su ma nee Père xel yi dem ci écurie Lansar xanaa di ko bàyyi mu nuyoo ñu wéel waxtaan bi Père Max nuyu naa la. waaw euh, fii fii maa ngi leen di fay euh, di kontaan ci yéen liggéey bi am na solo yal na yàlla mottali. di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi comme d'habitude rek waxtaane làmb léeg-léeg ñu ne Père Max làmbaloog ma tiit ndax yëfi ñëpp la euh, mais daal euh, pare naa tontu seeni question leen di ñaanal ca kaw ca kanam mhm. ñu gis la nga nekkoon ci làmb jékki-jékki bàyyi làmb li naan dundewoo làmb waaye yaa ngi dundal làmb lan moo bàyyi ci làmb ba léegi anoo ah li ko waral mooy euh, làmb moom da ngay romb ñu koy def rek donte bi cosaan li jàllee bëgg ko di ci yëngu soo dee nag ba am ak njaboot ñu di ci yëngu nga yor école de lutte di chroniqueur di reporter di ménager kon munoo bàyyi am xale yu am ci yow yaakaar jël seen bopp dénk la doo mën a def lu ne seen keppaar rek comme ni la mag ñi daan jàppale nga jàppalee ko sa njaboot euh, loolu daal mooy euh, jàngatu làmb ndax nag làmb moom danga koy dund rek mu am ñaari jàngat làmbi démb làmbi tey amaat beneen ñaari jàngat mooy li nga fekkee ak li ñu la nettali kon moo lay wane làmb daal fi ak yaa ngi ci biir di man continuité lay doon beneen bi làmb foo am dof la ku wér génn waaw. <laughs> ñu gis la làmb ni méttee nga jottee cee jaar mu métti nga dikk yor ay xale amaana am sa doom sax bu ci nekk di ba est que yor bi yomb na tiim ay xale ñoo xam ne ku ci nekk kenn ku ci nekk bokkul ak sa moroom jikko nga bëgg leen a yor leen tàggat waaw euh, yor bi mën naa bañ yomb ci kow euh, doxalin lay doon ci rek ci njiit bi ndax euh, ku ne xam ne ne wolof dafa ne fukki nag benn bant mën na leen a sàmm mais fukki nit fukki bant moo leen di sàmm ak ku ne xelam ñii boo leen biijee ñu bañ danga leen di neexal ñii danga leen di forcer kon duñu benn mais yow mi ànd ak ñoom nekkal ci dëgg rek dëgg rek mën naa débuter métti mais mooy mujj. su boobaa danañ la ruus ndax bul fexe ñu ragal la ndax ki la rus ragal bu dee ba tolloog yow doole wala mu ëpp la ko dootu la faale mais rus dañ koy deyaale te xale yi jox nañ ma cër au moins bëriwu ci bokk wala ñu ci ëpp bokk buñ doon déggoon sax su ma leen séenee ñu noppi ndax xam nañ ne fi ma leen di taxaw seeni jur ñoo leen foo fooroon taxaw seeni jur dañuy jullit tàkkusaan dem ca kër ga di xaar timis jot ñu joxe waxtu wi man ma julli saa dem taxawu leen te ku jóg ne damaa bëgg a teral samay jur kon xale bu ci nite dina la jox cër ndax moment fi sa waajur waroon taxaw dafay taxaw ngir nga réussir yow xale yi nag man déggee nañ ko noonu ba jox nañ ma boobu cër. Mhm. léegi su ma ñëwee ci wàllum écurie bi nga yor ndax gis nañ ne écurie macha allah écurie bu mag nga yor waaye dañ ci dañoo bàyyi xel lenn. dafa boo bu ñu gisee benn mbër nga commencé koo tàggat mu dem ba commencé am ali bu baax day jékki-jékki mel ni ku dellu siwaat su ma su ma neexee mën naa lim ci ko mel ni Fëgala ci ku mel ni Nees ci ku mel ni euh, Super Étoile ci ko mel ni euh, Nëkkureel bari na pas mal ñoo xamante nii lan Lansar amoon na ci ñoom yaakaar ñu jékki-jékki gis leen daal ñu wàcc wàcc boo xamante ni kenn du comprendre lan moo waral wàcc amu ci bëri nga ci ay question ndax même ñi la jiitu ci làmb di ay chroniqueur sax ñii di reporter bàyyiwuñu xel dañ naan saar niveau ba mu nekkoon nekkatu fa. c'est mm. dañoo comprendrewul li Lamsaar réussir bëriwul écuries yu ko réussir ndax am na écuries yoo xam ne bu leader yi nekkee bees de forme rek écurie bi day fay mais Lamsaar chaque moment dañuy créer ay génération boo xam ne dañuy joxanteeg ñi fi ne kon toujours écurie Lamsaar mi ngi exister ñooñu nga tudd nekkuñ baisse de forme de da xool ñan lañ doon bërek nees ñan la doon bërek ñëpp ñu doon bërek bàyyi na te teewul ba léegi moom mi ngi tenir. mais est-ce que bàyyiwul. bàyyiwul. fa nii laaj na ma licence am euh, doon dafa bëgg def MMA mais mi ngi wit komba parce que lamsaar bi mu jël pay ay tijaan fay ñun doon daan ñu cëpp bàyyi nañ lamsaar di reyante di jël pay mais lamb de évoluer de génération en génération moment bi ñu toll bi ay Ama Baldé lukkee koy ay Boy Niang lukkee ko ak ñi mel ni ñoom ñun créé nañ Siteu créé Mama Lamine créé Coen su créé ñu mel ni ñoom teewul seen mag ñooñu bàyyiwuñ au moins ñun liggéey nañ ci côté boobu am na ñoo xam ne dañuy topp ci mbër rek su mbër ya bàyyi rek écrit ba fay ñun xam nañ loolu ba toujours dañ doon liggéey ci base bi moo tax ba tey ñoom fëgale ñi nga wax def nañ li war def te bàyyiwuñu ba léegi ñu ngi ci làmb ji fëgale mi ngi waajal combat mi ngi wét combat Super Étoile mi ngi wét mais ñoom seen génération def nañ li war a def te ba léegi bàyyiwuñu mais làmb nag day évoluer de génération en génération wasee ku mel nees ay ñoom Ndiaga Sarr ay ñoom Gambien ñooñu mu doon bëreel xoola fi ñu toll boo tuddee ku ci mel ni euh, euh, Tidiane Faye euh, ñoom Wuli ñoom Ousa Ousa 2 ñun ñëpp daan na leen ñoom Pape Tine Sandika ñoom seex Ngiraan ñooñu ànd ñoom bàyyi nañ te ñii nga wax ñoom ñu ngi continuer di tenir mais làmb day évoluer de génération en génération ñoom Tidiane tey même buñ bàyyi woon def nañ li ñu war a def ndax ñun doon bëri li ëpp ci ñoom bàyyi nañ mais écrit bi au moins tooguñu. professionnalisé nañ ko ba liggéey yeneen xale yu téye relève bi ba toujours écrit lamsaar bi exister ba doo lim fukki écrit boole woo ci lamsaar kon moo lay mën a liggéey boo xam ne macha allah mag yi jàppale nañ seen xale donte bàyyiwuñu làmb ba léegi foo tudd écrit rek tudd écrit lamsaar tey nag lamsaar rek nga ñëw mën fee génne dix champion ñëpp di bëre grand combat te du écrit bu yàgg kon moo lay woon liggéey bu am solo la du li ma ko jiite mais xam naa ne macha allah. liggéey bu am solo la mais balaa ñuy génn ci loolu. lan mooy waral kon ñoom seeni combat du yéex ba nit ñi di leen fàtte parce que boo xoolee xale yi ñu fi lim ay Maama Lamine ay ay ay ay dem nañ ba ñoo ngi leen bëgg sax sut xaw niveau wala boo tollook ak ñoom niveau lan mooy problème bi ba combat yi di yéex ci ñoom. ci wàllu football laay ñëw discipline yëpp laa la wax sport day favoriser xale. Aliou Diouf du kii lañ doon wax El Hadj Diouf ak ñoom Fadiga mm-hmm. léegi ñu ngi wax. doon nañu wax ay Ronaldinho ak ñu mel ni ñoom léegi ñu ñuy wax. Neymar. ah ñoom Neymar la ñuy wax ñoom Mbappé. doon nañu wax ñoom Mbaye Guèye Tigre Fass di ñoo Yékini ñoom papkan ba ñoom Khadim Ndiaye numéro un ñoom booy Kayre léegi ñu ñuy wax. Ama Baldé Boy Niang. waaw ah, kon léegi teen question bi tontu nga ko sa bopp sport day évoluer de génération en génération te day favoriser xale mais nag da nga gis mag moo xam ne day tenir ba toujours moom toujours day wane boppam au moins ñun am nañ mag ñu mel noonu ba léegi bàyyiwuñu parce que bu ñu toppoon ci ñooñu rek parce que promoteur bi mooy porté choix ci jox ma diw soo demee ma nag ba siiw di drainer mbooloo mu bëri su boobaa promoteur yi ñoo lay wit si su boobaa boo siiwee da ngay neex a coacher ndax promoteur yi soxla ñooy ñëw ci vers ménager bi ak ci vers le lutteur mais day toll moment boo xam ne promoteur mooy tànn li bëgg mu tëgg ko mais teewul yow amal fu la ju toll rek boo amee combat nga gérer ndax léeg-léeg ma ne bu leen décourager ndax Eumeu Sène moo mag ñii nga wax ñëpp. te ba léegi mu ngi tenir bokk ci VIP yi. moo tax du ma ma man du ma bëgg mbër di décourager. te toujours ci Eumeu Sène laa leen def exemple. waaw ndax moo leen mag te ba léegi bàyyiwul mi ngi rayante te ku ci mel ni Eumeu Sène Gris Bordeaux ñëw ñëpp leen dese bëreetul mais moom mën naa bàyyi ba dem ba bàyyi bëre day bokk ci VIP yi loolu nag chance la ku nekk li la yàlla defal mais day toll benn moment boo ci yàggee amoo benn chance bi bon say combat du sore yoo ngay soutien de famille. danga naa non du ma topp rek di entraîner xale yi te am lu ma yóbbu sama kër moo waral li rek ngay déserter moo waral seen adversaire yi ma lay wax nga yàgg ci terrain bi te mënoo am yenn combat yi di soutien de famille nga ne naa dem witi leneen waaw